di nit ku dëggu ku am personnalité bu ñëpp respecté loolu mbégte ak caawarte laa am pour ñëw fii waxtaan ak yéen waxtaan bi nag soo gisee ma jaarale ko ci président chambre des métiers pour mën a jokkoo ak artisan yi man dama xam procédure mhm. parce que mooy sama métier. lépp looy def rek dafa am yoon woo ko war a jaarale kër defe naa boo ciy dugg ci dundu kër bi nga war a jaar mënoon naa en tant que homme politique kenn ku nekk ci yéen ma saisir la individuellement wax leen damaa soxla artisan su ma leen wooyee man ngeen maa ñëw si waaye su ma jëloon initiative woo leen individuellement dajeeg yéen feneen fu dul fii. amaan ni ngeen ma war a déglu du ngeen ma déglu wala cër bi ngeen ma war a jox du ngeen comme nag seen buntu fii la loolu tax ma jaar ci président bu mën a waxtaan ak am na ku ko fi wax man defuma politique politicienne maanaam jóguma di wut mbooloo boo xam ni dina tax dootuma wéet ba ñu weg ma jox ma ay cër loolu taxu ma maa ngi sant yàlla bu baax waaye nag dama bokk ci ñi nga xam ni dañoo gëm seen conviction maanaam lu leen ñor rek dañ ciy def ba jeex lu leen ñorul nag dugg ci yàgg naa Thiès fi liggéey ko président wax aw xaar ba yàlla kenn moo ne nag liggéey bi may def su ma ciy dëgëroon amaana yéen ñii comme ni ko président waxee bu leen woowee ma waxtaan ak yéen ñaar wala ñett ñooy nekk ci saal parce que day fekk am na fu ma ci jaar ak ñeneen jaar yi moo xam ni bu mu déggee sama tur sax jëpp waaye ñu ngi sant yàlla ba loolu am yàqul dara suñu liggéey au contraire suñu liggéey dañ koo yaatal parce que jombul dégg ngeen ci wàllu liggéey en tout cas ci impôt fi ma fekk Thiès ñaar deux deux milliards laa ma fekk ci daaw yi naa ko neuf milliards. neuf milliards yoo xam ni industrie yu mag yépp bokkuñu ci. parce que li nit ñi war a xam mooy li ñuy wax grande entreprise yépp dafa am benn centre bu nekk Dakar boo leen

parce que lu waxtaan sotti lu du sotti xool leen guerre yi guerre lu mu métti métti métti ci toog ci table rek waxtaan fa lay mucc fekk ñu bëri dee kon waxtaan moo am waxtaan nag du xoolante waxtaan mooy sottante xalaat indi xalaat war a taataan seen xalaat parce que même xel yooyu doxalin bi gën a rafet mm. mooy bu ñu jukkee ci xalaat yu bëri tënk ko moy gën ci doxalin man moo tax ci liggéey politique bi may defal président Macky Sall dinaa ci dellu si damaa am lu ñuy wax une démarche inclusive maanaam li may dox dama koy dox di ko dox ak mbooloo bi ak nit ñi parce que lépp ngi ci nit boo jubóog nit ñi rek déggoog ñoom ñàkku laa fii ma ñëw nag dama fay sawar lool muy les artisans de Thiès.

war nañ koo seetaat parce que dafa neexul ci dégg ñi nga xam ne ñoo fi gën a représentatif yore doole économique boo leen bëggee tudde informé wax moom bu ñu jara xoolaat seen gën a méngoo ak seen dayo ak seen poids sur waaye nag comme secteur informel lañ koy tuddee pour ngeen xam ne ma bëgg a wax boobu rek laa jël Donc, vous êtes le secteur informé du Sénégal, président de la République Macky Sall, il faut une importance. Parce que ce que je veux dire, c'est que vous avez le droit. Vous avez le droit de croiser les droits. Vous avez le droit de faire l'économie. Vous avez la liste de ces corps de métier là, est présentée. Mais, si vous avez le droit de faire l'économie, su ma nee njaboot nag mooy njaboot sur le plan professionnel mais famille physique également yéen li ngeen représenté ak li ngeen boot ku leen génne ci Thiès lu bari nga fa kon ku soxla dara Thiès waaye waaye buy wax ak ñeneen bàyyi leen fii xam yoon bi mu war a jaar loolu tax ci yéen président Macky Sall ñu ñun ñu def proximité. porte à porte ñu bëri nag dañuy amuñu dégg maanaam xamuñu Macky Sall bëgg wax bu nee porte à porte waxul kër par buntu kër wala boog bu waxee noonu ngeen tàmbale ci buntu kër yi njëkk a gën a rëy lii may def porte à porte la parce que gis moom porte bu gën a rëy bii ñoo dugg si yi gën a rëy bii gis moom moo nag dëgg la sama yeneen naataango yi ni ñuy def di dugg ci kër yi maa koy def waaye nag man dama jox dayo les chambres consulaires représentatives et cetera loolu lu am solo la mooy dina message boo xam ni bëgguma mu nekk message démagogique maanaam wax leen wax yoo xam ni wax bu neex la bu bu neex a dégg fekk boo ko gasee doo ko fekk dara loolu soxla wu la waxtaan la soxla yéen ci seen bopp soxla ngeen appui ak soutien état état tamit soxla na seen appui seen participation li président wax ni la commande publique jox nañ leen ci 15 pour cent loolu c'est un premier pas nañ ko rafetlu.

moo xam daal la moo xam chaise bii ngay toog la moo xam lan la moo xam yére yu rafet yi ñu sol loo ci jël rek li la artisan sénégalais yi defar moo dàq moo gën li ñuy jënd bi ñëw te li ñuy jënd bi ñëw gën a cher loolu nag lu ñu war a xeex la xeex bi nag ñoo ko war a bokk Si vous nee ko war a bokk ñi nga xam ni def liggéey mais état bi nga xam ni saytu la politique de l'artisanat donc collaboration dafa war avoir diggante état vous ma état la wax président de la république il njëkk a wax parce que mooy de état mais président de la république aussi dafa une famille politique dafa am parti bu mu jité ak bu mu parce que loolu ko may mu nekk président de la République kon dissocié wu ma ma bëgg nag ñu xalaat bu baax man ñëw ma def pour campagne bi mais damaa ñëw pour ñu xalaat ñu ñëpp réfléchir est-ce que président Macky Sall politique bi mu teg en matière d'artisanat est-ce que jar naa jàppale bu baax ngir que idée bi idée bu mu am ak xalaat bu mu am ak yéene bu mu am ci artisanat yi gën a yokk ndax jar naa jàppale wala jar na jàppale télé bi nag rajo bi ngeen nga dégg ko déglu ko dégg ko bàyyi ko xel ba bis jot bis bi jotee ngay waaxu dañ ci urne bi yow rek ak yàlla nga seet ki gën ci dëkk bi loolu mooy bëgg te bu ngeen ko seetloo opposition Macky Sall mooy son thème de campagne waaw lii la fi def def fi lii du wax lii la fi def def fi lii lañ ah. te critique sax boo koy def même sa noonu bu defee lu baax doo ko nekkal ne ay la yëwét ah. lii da def dafa ne baax ah. waaye lu ëpp ci li mu war a def def ko boo ne la ñoon laa dee waaye def fi dara waaw wax dëgg nag ñi nga xam ne dañuy wax ni vision Macky Sall wees pour jam ñaani te bu ñu duggee seen oto romb jam ñaajo dañuy daw ci autoroute ba egg aéroport. daw aéroport dem ba si jël ci ci autoroute wax loolu ko joxe. fas yéene dem ba Touba. fas yéene dem ba Touba. est-ce <laughs> que liggéey bi yegg bu yegg. passé moo koy wetti mais da ngay ne duur xam ne li ciy wax wax dëgg yàlla day wax rek waaye vision bu ñu ko dee wax man président boo xam ne ëpp na président Macky Sall vision ay firnde laa indi man yàlla dafa baaxee position politique pour professionnel bi koy wax ay dossier investissement yu Macky Sall yu bari day jaar sama loxo parce que yàlla dafa baax mën a recevoir des domaines de Thiès. Mm-hmm. lépp lu fiy suuf ñu war koo régulariser. Mm-hmm. dossier bi maa koy expliqué. Mm-hmm. ma gis ci biiru ñeenti at investissement yi Macky Sall def dans la région de Thiès boo jukkee benn rek secteur muy le secteur de l' énergie nga xool li ñu fi def ci ay milliards et milliards dans la région xoolal secteur électricité bi. Macky Sall bi muy jël réew mi 2012 wóor na ma ñi fi ñëw fii di campagne seen mat la bu takkee da ngeen a laal dugg fële. waaye du courant. kër goo dugg atelier tailleur goo dugg. groupe ba fa ne ñi amul groupe sax je eh, naa li ma fi fekk ci ay marche waxtaan seen solution.

bu ngeen ko seetloo fi ñu toll nii Sénégal vingt wala trente pour cent de l' énergie provient de l' énergie renouvelable bi tant que ñu ngi dund ak dootu diwul yàlla bu ñu ko fekkee jant bi def yi ne waaw boo fexee koy jant bi ne nga ciy am xam nga jant bi du jeex lu toll ni vingt wala trente pour cent électricité Sénégal léegi foofu lay jógee ci naaj bi ci ngelaw bi et cetera loolu lu am solo la parce que day tax facture pétrole bi nga xam ni moom la ñuy euh, jànkonteel te mu diis lool day wàññi ñu sant yàlla sax parce que pétrole yi am na Sénégal loolu yëpp ci ay Macky Sall vision yàlla dana ciy jàppale boo amee vision yàlla lay fekk si jàppale donc ay Macky ay la yéen ay bu ñu jig la comme nag jig nañu

ci assemblée nationale opposition bi ëpp fa ay député ëpp fa doole. loolu bu ñu sàgganee ba mu am. dana bëgg a wax nag conséquence yi. conséquence benn président projet bu mu yóbbu. assemblée du ñu seet baax na du ñu seet baax ki ko indi la ñuy bëgguñu ko dañoo bëgg mu jóge fi. kon li mu indi dara baaxul ci. ñu teg fee.

waaye bu ñu sagal nag yóbbu assemblée ñoo xam lu baax li ñu fa yóbbu ñu sànni ko tax ñu ñu di waxtaan ak nit di attirer seen attention nañu fexe ba président Macky Sall ñu jox ko majorité bu ko defee de fii ba 2019 projet yi mu mu mën yeggali ak bu ko ñun ñëpp

mais nangu na nak nek sen partenaire ya. ci lepp lo xamni mom la man ci lepp lo xamni sama compétence la man nangu na pour accompagner ci lo man démarche politique bi ma am ak ni may doxale ak ni ma tamu di waxal motax mom staff bo xamni wax deug yalla ay kàmm madame sax ci biir Souleymane Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ñoom daal jaxate ay conseillers départementaux. Moussa Gueye di toog. xam nga ay kàngam la yoo xam ni caaxaan jëlewu leen fa indi ko ci yow. da ngaa mën a nekk ku dëggu. di wax dëgg di ko def. am am am aussi un projet. respectable. nga mën koo partager ak ñoom. loolu moo ñu may ñu am staff boo xam ni. par exemple, vous être à votre disposition pour accompagner. C'est pour ça par exemple, que vous êtes un peu à l'étroit, si tu veux dire. Nous y mettons, les charades. Et tu échanges les armes avec le docteur Augustin. Parce que dans le Bogo, c'est notre chess, sous vous chess, commune ou chess. Presque, ça veut dire à de sens. Mhm. Mais commune, il y a

Mandina dinaa avec le maire de Saint-Denis. pour que nous am une partie bu nous réserver aux artisans. comme ni zone industrielle avec zone artisanale je suis prêt à porter ce combat avec votre président. te loolu bu soppi ma yéen artisan yi yéen a ciy bénéficier ngeen a am seen espace boo xam ne kenn ku nekk moo xam couture ngay def moo xam mécanique ngay def moo xam menuiserie ngay def bu la yàlla baaxee nga tabax dëkk ci kaw ci suuf nekk sa garage ak sa atelier. c'est pas de la démagogie dañu koo xalaat bu yàgg ñëw ko ko bëgg ak yéen parce que jàpp naa ni. Euh, jàppalante sur le plan politique en tout cas bu fekkee politique de développement la ñuy def façon bu mel noonu moom la ñu war di def mais nekkul ñëw ci yéen indi fii 500000 wala 1 million wala xaalis bu bari loolu day daal di jeex et du tax position change donc président vraiment bu ma monopoliser la parole euh, message boobu laa indi woon bëgg nag déglu leen bu baax parce que aussi président Macky Sall jox nañu considération dinañu déglu. am na loo xam ni responsable yi peut-être souvent duñ ko ko yeggee. mais lu yegg ci moom rek. ci loo xam ne lu ñu war a faj da ciy jël ay mesures. moo tax di leen déglu bu baax am solo. un homme politique doit avoir le sens de l'écoute. boo ko amul. Mm. ñi ngi ko seetal wala ñi nga représenté doo xam seen jafe-jafe doo xam seen problème te problème boo ko xamul doo ci am solution. mi ngi tudd Amadou Moustapha Sarr dëkk fii Tivaouane di directeur CEPAC ba fa ne mm. mu ne l'émergence et l'emploi des jeunes. l'artisanat une alternative kon président xam na ni yéen ñi bu bëggee régler la question du chômage parce que depuis l'indépendance question du chômage réglé wu teg nañ fi structure bu ne teg nañ fi Sonaga teg nañ fi DIR teg nañ fi FNPJ teg nañ fi ANPEJ yooyu yëpp euh, ANEJ Fonds national de de, pour la promotion des jeunes peine de résoudre la question de l'emploi mais Macky Sall ñëwee mu ne dama koy jël à bras de corps

di ngeen ko mën a defar ndax am ngeen formation mu ne war ngeen am équipement la équipement parce que équipement yi ñu yor tey bu ñu leen defaloo 1000 bëgg a ci menuisier bëgg leen ko defloo ci en un mois dina am problème parce que amuñu équipement mu mel ni aussi problème beneen posé wu mooy problème atelier ko am ngeen problème atelier est-ce que atelier bi mel na na mu war a mel est-ce que atelier bi yaatu dama demoon ci atelier ñu defaroon jamono Abdoulaye Wade ma fekk fa 3 mètres sur 3 mètres alors que nature de menuisier donc affaire de menuiserie standard yëpp nañu huit mètres sur douze mètres. waaw du noonu kon Macky mi ngi rectifié pour mu ne bu ngeen amee formation ñu pare ngeen formalisé wu pour euh, président xam leen formalisé bu deuxième effet mu ni ngeen am foncier mooy li leen wax léegi. bëgg naa ci ñëwaat pour dëggal li ñu wax léegi. Hmm. en fin de compte ngeen am financement mooy li nga xam ne ñeenti effet boobu ngeen ko combiné. di ngeen émergé woon dëkk bi di ngeen dundal bi foos yi kii président wax léegi mu jàpp naa ni président bi mu leen koy wax xam nga ni sax rek la ba pare parce que gis ngeen ni dans le plan national d'aménagement du territoire bi ñuy wax le triangle Mbour Thiès euh, euh, dak euh, kii Diamniadio dañu am zone dédiée à l'artisanat moom la leen préparé lii daf ci anticiper parce que accès bu ñu ci plan ñu woo suñuy bokk. suñuy jabar suñuy doom sax suñuy sët. ak ñu ñu jàngal lu métier. ñu ñëw jàppale Macky Sall ànd ak président Sall. damay jël ndax comme que ñëpp ah. dañu li ñu war a xam ko dafa koy tënk rek waaye sama xel dafa président Seye madame Sall hmm. ñun yéen rek lañu xam. Sall dafa mel sant bi suñu bunt ci lépp suñu demoon. Hmm. comme ñun dañuy sant hmm. ah Babacar nag. xam nañ ko waaye ñoom seen xam tey parce que xam nañ ci télé bi waaye présidentiel koo xam xam nañ ko koo jàpp jàpp nañ ko koo naa président bàyyi na ko xel lii ñu fi dégg ñëpp mu yàgg fi lool hmm. tey mu duggaat fii ñëpp dina ndaw ak hmm. te loolu nit la koy liggéey nit ñi fexe ba ñu bëgg la yaa koy liggéey